Macky Sall bilan mooy zéro virgule zéro plus zéro égal zéro parce que yaakaar naa ne boo jëlee euh, fu mel ni Tëngéej Tëngéej li ko war région de Dakar euh, bu fekkee Macky Sall réélire nañ ko tey jii nii Tëngéej moo tax parce que Tëngéej ci la am 54 pour cent Tëngéej la am 54 pour cent moo waral tey mu gagné région de Dakar mais waa Tëngéej ñu ngi jooy waa Tëngéej ñu ngi yuuxu tey jii nii Tëngéej yaakaar naa ne euh, delloo nañu Tëngéej comme. Euh, communauté rurale communauté rurale yu jëkkee ndaxte tey jii nii euh, Macky depuis premier mandat ba deuxième mandat du dara lu mu def Tëngéej deuxième mandat bi waa Tëngéej Falk avec 54 pour cent ñëpp yaakaar ni dina yokk mu gën a yées. ñii àndoon ak wàcc na leen ñii nga xamante ne. mom lañ yaakarul di Macky Sall tass na seen yaakar Macky Sall la xarna na tënga ñaar ndax téram bi ni bo xolé teer bi ñun ñi dëkk côté nord suñu kër maam nekk fi ni nga xamantene ne civil bi tay ji ay mbokay yi loolu Macky Sall la kéré tëngeej tey jii ni tëngeej amul benn autorité bo xamantene ne Ismaïla Madior Fall mi nga xamante ne moo nekkoon de la république gam sax tay ji ni bo xolé xolal ni mu ko mujjé def da mujjé wàññi ay laafam dab ma ko ñëw teg moom doomu tëngeej lay bañ gis kon tamit yaakar na ne gëw wa waa tëngeej am ci bilan Macky Sall zéro man tëngeej gisuma lu fi Macky Sall def moo na fi gën a baax parce que bi tey jii nii d'accord nañ ñun ay ndaw lañ euh, mu tabax ab stade bu baax mu tabax loo xamante ne mooy stade football stade basket stade lépp parce que tey jii xëllëg dañuy am ay doom dañuy ay sët loolu lu baax la mais tamit nag kalaa football yi kalaa basket yi xanaa di nga suur di nga lekk ba suur di nga solu di di di nga di nga tëdd fu baax. mais tey jii nii si conditions yooyu lañ wax actuellement ma lay wax nii Sénégal lii ñëpp a dund mu ngi def courant baa ngi nii cher na mu ñu ñu ñu mu ngi nii ceeb bi barka démb lañ ko yokk sama soxla dama ko laaj kilo ceeb ñaata man ma kilo ceeb yokk nañ si fukki dërëm ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk Tëngéej juddoo Tëngéej suufu Lebu yi Macky Sall ñeneen yi ñu ngi ñëw di ko nangu borom barke yi ñu ngi ñëw nangu nañ suuf si sunuy moomeel nangu nañu ko fu mu nekk Tëngéej daal gisul boppam si mi nguuru Macky Sall par rapport à nguuru Senghor nguuru Abdou Diouf nguuru président wadd